ngemb lu weex lii réparé ngemboo fax bi mooy mbokki arbitre bi dox ci diggante Anaconda ak réparé ndeysaan Anaconda xanaa daa fàtte téere baat consulté na ay juge am ndomba ba mu takkoon ci baat bi dem na fii ak toogoo arbitre bi du sifflé ak quatrième arbitre bi nee na coach bi toogal wax na ñaari mbari sifflé na mbokk yi arbitre bi sifflé na réparé nga jàkkaarloo Anaconda moo la woon ginnaaw dañoo daw rek jàppante ndeysaan réparé Papa Kane Anaconda Père Birahim ma koy nuyu sama papa ji di ko ñaanal gudd fan ak wér ndaysaan formé ay xale yor ay xale di leen ci làmb di leen tàggat añ na ko daan na ko la ilaha illallah eh jël bi anaconda daan na réparé na ko jël bu eh, a parcelle anaconda ngay ñëw ma ngay daw di ñëw. xale yaa ngi daal xale yaa ngi daal rek incha allah nam rek dama dama jàll jàll. Fra yal na la yàlla may yal na la yàlla may xool ma xool ma. xale yaa ngi daal yal na la yàlla may yéen ñëpp. journaliste yi. nekk ngay jaar suuf. ndeysaan.